Pas pour ça, ils une population qui conseille, qui attend, qui attend, rendez de sa province. Merci, commandant. beneen bi mooy li nga xam ne mooy téeméer bu quatre avril bi. Ah. dañuy wax ni gestion des ressources naturelles si wàllu sécurité. nga defal ko sa bopp boobu indépendance boobu ñëpp war a xëy daje célébrer ko wax dëgg yàlla nu yàlla may fanaan jàmm salaam mais bu kenn tardé na xëy yow sa jikko ak sa ngor moo bu ñu jógee dañuy léegi dem kër Babacar honoraire ñëw ci yow soo war a dem préfecture jërëjëf Communicateur traditionnels, Alioun Mbaye et Matar Sam. Je vous remercie pour ce petit mot à mon endroit. Je remercie les populations de Rosbejo qui sont venues massivement au niveau de la préfecture accompagner cette retraite au flambeau que nous avons pu avoir grâce à la contribution des sapeurs du centre de secours et d'incendie de Richard Toll. Vous voyez les applaudir très très fort avec les ASP de la police de Richard les gendarmes de la brigade de proximité de Rosbecho. On vous remercie très sincèrement pour cette très belle soirée qui est une prémisse pour notre célébration de demain et nous espérons, et nous espérons que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Population de Ross Béthio Ginao Boumalen Nuyo, Santelen, nuyoo sant leen gërëm euh, di jaajëfal ndax Sénégal Lille la am ndax bi suñu depuis 1960 ba léegi ñu célébrer c'est la première fois ñu ngi def retraite au flambeau bu li tax ñu am ko suñu yi taxaw suñu sapeur pompier yi depuis Richard ASP di depuis Richard Toll ak suñu gendarme yi nga au niveau de la gendarmerie de avec les jeunes de la commune ànd ci ak waa Croix-Rouge ànd ci ak mairie bi ànd ci ak ñëpp ñi nga xamante ne c'est des forces au niveau de la commune de Ross Béthio donc dañuy wax ni ki guddi gi tey mën na nekk loo xamante ne entrée la bu dee lekk la dañuy ne entrée la suba mooy plat de résistance bi te njortu nañ ni ki plat bi dina dàq li nga xamante ne mooy entrée bi donc ñu ngi wo ñep suba si bëss ba ñu mëna a à 7h30 ñu mëna tambalé euh très tôt ñu euh très rapidement parce que si wéru koor lañ ne di profito di len euh, ndokalé ci wéru wu tell sedd wi di ñaan yalla nangul ñu suñu koor di wax ni ki mom sa bop dafa neex mom lañuy suba mom lañuy

et je voudrais quand même applaudir ko parce que au-delà de sécurité pour nous ñuy nous mu ngi def loo xamante Nous loolu la ñuy xaar ci jàmbaar yi te bu ni bis bi à part yi ndaw ñi thème bi woné nako parce que thème ren 63e anniversaire moy force et défense préservation des ressources naturelles car nous, ni ñom chaque année dañ ci bokk mais ren ji aussi gën nañ leen dugal ci mbir mi te ñu gën a fësal ñi nga xamante ne ñooy les bérets verts bérets verts foo ko tuddee rek mooy ñi nga xamante ne dañ ñuy sàmmal suñu environnement ndax environnement bi buñ ko sàmmul musiba naaru laay la ñuy am donc c'est l'occasion pour ñu tàggataat njaw ñi ci préservation de l'environnement donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp si ñëw bi que la fête soit belle je vous remercie de votre aimable attention